alors nañu ñu may euh, policiers yi jël seen seen barrières yi ba pare su ko defee ñu mën a ñu mën a rek daal di continuer waat euh, si euh, yile intervention en attendant ñu dem xool yeneen information yi nga xamante ni aussi euh, ñu ngi ñu koy envoyé au niveau de la rédaction euh, pour ñu mën a rek gën a véhiculer euh, si li nga xam rek moom moo di alors yile xabaar jëmale ko si mbirum alors verdict bi nga xamante ni daal na yi rek wadd ndikki tey jii nag nga xamante ni moom moo nekk bésub alxamis fukki fan ak ñeent. alors si weeru euh, décembre bi ñu nekk si atum 2024 euh, euh, su ko defee ñu gën a wëyandi ak yéen donc mu nekkoon l' ensemble des réactions yu avocat bu Ousmane Sonko waaye tamit dégg ngeen avocat état du Sénégal bi di maître El Hadj Diouf moom tamit daanaka la mu wax rek moom moo di ñi nga xamante rek ñoom ñoo di ñiy faree si usman Sonko jarul ñuy crier victoire ndaxte tôt ou tard dinañ dem. si li nga xam rek moom moo di sa douane cour suprême pour amal fa li nga xam rek moom moo di ak euh, cassation ndaxte ñoom tamit euh, jàpp nañ li nga xam te rek moom moo di euh, biile donc mbir dafa rek daal di waroo ate bi nga xamante ni cour suprême atte woon na ko si bésub la 17 novembre passé ndaxte bésub la 17 novembre bu boobee bu ñu fàttali ko cour suprême dafa rek daal di joxoon dëgg état bu Sénégal maanaam neenal atte bi nga xamante ni ate woon nañ ko fële sa duwaanu Ziguinchor boobule juge sax d' accord boobu les juges euh, daanaka sax dafa rek daal di euh, waxoon. donc euh, mu amaat beneen xabaar boo xamante ni daal nañ koy am si maître nga Demba Touré moom mi nga xamante ni aussi def na benn poste boo xamante ni. Euh, donc maître Ngagne Demba euh, Touré euh, nee na vous le savez tous la justice garant des droits et des libertés à ordonné sa réintégration à Ziguinchor et à Dakar la Sénat arbitre du jeu électoral a demandé la remise des fiches de parrainage à son profit donc à moi voilà excusez-moi hein, pour inter euh, donc euh, dag bi ñu ma dog tout à donc euh, ba tey ji jiwaat si poste bi nga xamante ni maître Ngagne Demba Touré def na ko nee na vous le savez tous la justice garant des droits et des libertés a ordonné sa réintégration à Ziguinchor donc et à Dakar donc la Sénat arbitre du jeu électoral a demandé la remise des fiches de parrainage à son profit donc le peuple euh, détenteur de la souveraineté donc l'a choisi comme dirigeant légitime Mohamed Ngadjemba Touré mooy wax ba léegi nee na si vous avez une once de dignité acceptez la volonté divine les décisions judiciaires et l'expression populaire Sonko cinquième euh, président loolu mooy euh, poste bi nga xamante ni euh, maître Ngadjemba Touré daal na koy def nee na xam ngeen yéen ñëpp que ne donc justice moom mooy di Euh, garant waaye nag euh, moom mooy daal di nekk li nga xam te rek moom moo di ay droit ak ay liberté euh, ginnaaw ba mu rek daal di joxe wala mu dëggalee li nga xam te rek moom moo di intégration réintégration bu juge si Faye jëloon sa duwaanu donc Ziguinchor waaye tamit tey jii aussi tribunal hors classe daal di koy jëlaat loole sax daanaka dafay wax ne lii di Sénat moom mi nga xam te ne moom moo di arbitre du jeu électoral dafa rek daal di sàkku ngir rek ñu Euh, daal di jox Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am euh, loolu nag mu nekk loo xamante ni donc euh, peuple bu Sénégal dafa rek daal di nekk détenteur de la souveraineté ginnaaw ba mu tànnee. lii di euh, njiital euh, Ousmane Sonko tey rek jàpp na ne am njiit bu légitime la ngir mu a bokk si élection présidentielle bu 2024 nee na si vous avez une once euh, de dignité donc acceptez la volonté divine maanaam ñu daal di nangu li nga xam te rek moom mooy li yàlla def ngir ñu rek daal di bàyyi Ousmane Sonko mu bokk si élection présidentielle bu 2024 donte décision yi daal décision judiciaire yi moom mooy expression populaire maanaam si kaddu yoon loolu nag moom mooy kàddu askan wi nga xamante ni Euh, loole rek day daal di représenté euh, ndax Ousmane Sonko tribunal bu Ziguinchor joxoon na ko dëgg euh, tey jii tamit si bésu alxamis fukki fan ak ñeent donc euh, lii di euh, tribunal bu ndakaaru euh, daal di koy joxewaat li nga xam teg moom moo di beneen dëgg boo xamante ni loolu la may daal di tekki ak la muy firndeel moom mooy donc Ousmane Sonko waxtu wi ñuy wax ak yéen donc il est candidat à l' élection présidentielle bu 2024 donc ñu jël antenne bi par rapport ak ñi nga xam ñu ngi woote ñu ngi insister pour mën a woote wala ñu dem seetaan benn élément très rapidement ñu ñëwaat.

qui, là, je, vous félicite et je remercie encore nos forces de l'ordre qui ont eu le courage à nous assister comme il le faut. Et... Oh, maître la mais c'est tout à fait raison, tu vas pas aller combattre. Même si on te combat, tu vas dire que voilà, je faire recours, c'est son droit absolu. Ils n'ont qu'à euh, introduire la belle dès maintenant. De toutes les façons, notre candidat euh, candidat, Inch'Allah Rabbi. Donc, il n'a qu'à introduire dès aujourd'hui son, son, son recours.